jëlee nañ ci abi hurayrata yal na ko yàlla gërëm nee na dégg naa yonentab yàlla bi sallallahu alayhi wa muy wax ni maa ngi gën ci yàlla ni man de dana jéggalu yàlla te danaa tuub dellu ci moom ci bés bi lu ëpp juróom ñaar fukki yoon xadis bi buxaari moo ko solo